bismillahi arrahmani irrahim wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim ñu ngi fas yéene ànd ak yéen mbokk yu tëddi tàbbi ci suñu juróomeelu bind ci taaliq bi ñuy jéem ci téere bu mag bi di murshid al muin ala daruriyi min ulumi ddin li cheikh abid al wahid ibn ashir rahmatullahi alayh ñu taxawoon ci bunt bi muy jàngalee tawxid kitaabu ummi al qawaid wa man tawat alayhi min al aqaid tuddee na ko ummul qawaid ndax ponki lislaam yi yonantu sallallahu alayhi wa sallam tudd ne juróom la ba ca njëkk di ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mooy ndeyu ñeent ya ca topp moo tax ca kanam dana wax ne qawaacidu lislaami xamsun waajibaat wa hiya shahaadataani shartul baqiyaat tuddee na leen ndey bu amul doom du dikk ci aada gannaaw moom mooy chartaay yi ci des moo tax mu taxaw taxawaayu ndey kiy julli te seedewut ne yàlla rekk ay nangulul yonantu risalatoom jullim haba am manzura kiy woor te seedewut laa ilaha illa allah seedewut risalatu rasulillahi wooram habaan manthur kiy natt azaka te nanguwul ne yàlla rekk ay nanguwul ne muhammad ndawama azakam habaan manthura ki xaj makka te nanguwul ashhadu an laa ilaha illa nanguwul ashhadu anna muhammadan rasulullah xajam poussière bu ñu du ko jëriñ dara moo tax bunt bi am solo mu tuddal ñu nag fukki melo ak ñett yoo xam ne jullit bu nekk war na koo xam ci boromam am ñu ne ah bu nangoo ne yàlla yàlla yonantu yonantu rekk doy na masala la boo xam ne xuloo bu rëy juddu na ca ndax taqlid dana wér ci tawxid moo tax xam moo gën a wóor waaw xam moo gën a wóor fukki meloog ñett yi nga xam ne xel mënta nangu mu ñàkk ci yàlla te koo dégg ñuy woowee yàlla ku yàlla subhanahu wa taala boo xoolee fukk ak ñett yi rek boo xoolee fukki yi ak ñett ci moom rekk xam ne du yàlla fukk ak yi ci yàlla rekk la jëkk te xel mënta xellu mënta nangu mukk ñu ñàkk ci yàlla tabaraka wa taala bu njëkk ba mooy am ñaareel ba di naka jekk mooy mosu fee jóg ñetteel ba di des ba faw ñeenteel ba di alqiyaamu bi nafsihi soxlawut kenn ñàkk soxla kenn ak ñàkk soxla lenn lépp boppam alxinal mutlaq dégg nga ba ci topp di wuuteeg gi mu wuuteeg lim bind waaw wéet gi mu wéet ci jëmm wéet gi mu wéet ci melo wéet gi mu wéet ci jëf kattan ak nammeel xam-xam ak dund dégg ak wax gis fukki yi ak ñett yu mënta ñàkk la ci borom bi tabaraka wa yu jullit bi war a xam ne melow meloy yàlla lañu xel mënta nangu ñu ñàkk ci moom tabaraka wa yi nga xam ne nag jomb na ñu dal yàlla subhanahu wa te koo déggati ñu koy tuddee yàlla boo gisee benn ci melo rekk nga xam ne kooka du yàlla waaye boo seetee suñu boroom seet melo yi daa xam ne benn ci melo yi du dal ci moom tabaraka wa yépp jomb na ci moom melo yooyu ñooy safaanu yi ñu tudd ci kaw ba ca njëkk mooy jeex yàlla du jeex mukk soxla yàlla du soxla mukk niroo mbaa yeemoog li mu bind du ko dal mukk kennam ngi ci jëmm ak ci melo ak ci jëf du dàqu mukk lot du ko dal mukk cibeel du ko dal mukk réer du ko dal mukk dee du wàcc ci moom mukk tëx mbaa luu mbaa gumba benn ci yi du dal ci borom bi tabaraka wa taala gannaaw ga mu jàngal ñu nag yi nga xam ne dafa dagan mooy yàlla bu ko neexee mu def leen bu ko neexee mu bañ leen def nekkul yu nécessaire comme nekkul yu impossible nekkuñu yu nécessaire comme nekkuñu yu impossible waaw ah, mel ni fay ku ko jaamu mbaa mbugal ku ko mooy ah, dagan bind bind mbindéef yi ndax nekk ak nekk mooyam ci mbindéef yi ci ñoom la nekkam nécessaire ah, luy jox mbaa mu ma koy jox dara waru ko ci dara it duut lu nécessaire waaw dundal ak rey yónni gim yónni yonant yi daf ko neex mu def ko bu ko neexoon du ko def su ko neexoon mu mbugal ñi topp ñëpp mbaam mu yool ñi mooy ñëpp ndax yëpp ci buntu imkaan la te imkaan waxoon nañ ne mooy loo xam ne ni mu mënee nekk noonu la dagane safaan ba nekk waaw moo tax mu ne yajuusu fi xaqihi ficlul mumkinat bi asriha wa tarkuha fi l adamat fi xaqihi bul wax fi xaqihi bul xëcc ndax woy wi dafa dem ah nee na wujuduhu lahu dalilun qaatic xaajatu kulli muxdathin lissaanic law xaddathat li nafsiha al akwaanu am na nu sax yu def bi nafsiha law xaddatat bi nafsiha al akwaanu lajtamaat tasaawi war rujxaanu doo wax tasaawi yii wayu dafa damm wa daa muxaalun wa xuduuhu l aalami min xadahi l araad maa talaazum waaw mu ngi indi nag ay lay yu tege ci xel parce que euh, dafa am jamono te jamono tey niroo na niroo na lool jamono jooja ay zanadiqatu feeñ ak i falasifa waaw di askane yàlla lu yellul di weddi meloom am ñu dem sax bay weddi nekkam bu ko defee nag boroom xam-xami lislaam yi xam ne soxla nañu dugg ci biir alquran dugg ci biir waxi yonentu sallallahu alayhi wa sallam génnee lay yi nga xam ne ñooy layal nekkuk yàlla ak yi yell ci moom lay yi nga xam ne ñooy layal yi jomb ci yàlla ak lay yi nga xam ne ñooy layal yi dagan yi dagan mu nekk bu ko defee ñu indi lay yooyu te yëpp xel daf koy nangu comme falasifa yi ak zanadiqatu yi euh, mantiq lañuy teg seen wax pour weddi fokk nga wan leen ne leen mantiq boobu mooy dëggal ne dëgg-dëgg yàlla rek a yàlla mantiq boobu mooy dëggal ne lu alquran askane yàlla rek askanu na askanu na ci yàlla waaw ah, xam nga mantiq xam-xam bu nit di jàng xam-xam bu nit di jàngale te fekk mantiq jiituwut dangay ngay jàpp da xam ne borom dafa foo rek ah, mantiq moo tax ndongo daara yëpp war nañ ci góorgóorlu ilmul mantiq xam-xam bu ne rek parce que ilmu àll la amul xam-xam bu mantiq du dugg xam nga xam-xam boo koy jàng liñ lay njëkk jàngal mooy taarif taarif taarif al ilm te taarif mantiq rek moo lay jàngal niñ koy defee waaw eh, philosophie tamit rawati ci parce que xam-xamu philosophie yëpp ci mantiq la tege waaw xam nga philosophe bu jàngul mantiq mi ngi mel ni eh, ki jàng balaaxa te fekk nax naxwu jiituwut mënul nekk mënul nekk léegi nag lay yi nga xam ne nag dafa sox dafa tege ci logique tege ci xam-xamu xel lay indi pour xamle ne yi mu wax ci kaw yépp dëgg la moo tax bi ci njëkk la waxoon mooy al wujud ah l'existence parce que euh, ki nga xam ne gëmut yàlla boo nekkoo yàlla ku nekk la mu ne la luy sa luy sa luy sa euh, luy sa lay nga ne ko yàlla wax na ci alquran ne wa ma xalaqtul jinna wal insa li yaabudun ma bind kon foog ngeen jàmm ne man gëwma alquran waaye nga delluwaat ci alquran afillahi shakk ndax ma bind rek mooy wane ne nekk na afillahi chek fatiri samawati wala afillahi chek fatiri samawati wala xoolal yi xoolal yi ci sa kanam rek nga xam ne nga xam ne nekk na yooyu nag la bëgg a indi ci taqale wujuduhu lahu dalilun qaati' xaajatu kulli muxdathin li saania bul wax muxdathin muxdathin li saania wujudu waamug yàlla gi la woon ñeel na ko dalilun tegtal qaati'un bay aji dog maanaa yaqin la du lu ñuy sikk sàkk xam-xam juróomi daraja lii wóor te borom du ca sikk sàkk ko koy xam-xam yi ci des yépp mënuñ ko tuddee xam-xam ba ca topp mooy lan vann maanaa jort ba ca topp mooy chëkk mooy def defle cinquante pour cent ci xam ak cinquante pour cent ci réer chèque ba ca topp mooy wëhëm waaw waaw mooy sikk sàkk wëhëm mooy def def le waaw wëhëm moom dégg nga réer la gën a jege ci xam ba ca topp nag mooy réer waaw mooy réer réer ñaari ñaari degré la waaw réer ñaari degré la buñ la waxee ne Baye Aliou Sakho kañ la fi jóge nga ne xaw ma ko kooku réer gu simple la jël mu mu rakkab jël basit la wax dañ la koy wax rek waaye buñ la laajee kañ la fi jógee nga ne 2010 loolu jël mu rëkkëb la fokk dindi li nga jàpp ba pare soog la wax ne 2005 la fi jógee waaw du benn jël mu rëkkëb moo gën a dangereux parce que borom du xam ne dafa réer kii réer te foog ne xam na. moo gën a jafe-jafe moo gën a jafe defar waaw parce que fook nga convaincre ko ne ko da nga réer ba noppi soog ko mën xamaloo loolu mooy jahl al murakkab mu ne nag wujuduhu lahu dalilun qati amu yàlla gi nag tegtal gi lu wóor la lu lu leer la nañ ñëwaaw ana la mu ne xaajatu kulli muxdathin soxla lépp lu ñu sos ak képp ku ñu sos li saani ñeel aji defer waaw soo fi fekkee jeexitu tànk rek moo lay wan tànk am na waaw athar mooy wane ne mu athar am na kon nag adduna bii dañ koo sos maak yéen ak lépp lu ne ci àddina bi dañ koo sos te ku ñu sos ku nekk rek am nga ku la sos kon mooy wane ne aji sos am na mooy yàlla tabaraka wa taala foo gisee luñ sos rek mooy wane ne aji sos am na bi nga gisee téléphone nga xam ne ku defar téléphone am na bi nga gisee table nga xam ne menuisier bu defar table am na bi nga gisee kër nga xam ne maçon bu tabax kër am na bi nga gisee nangam bi nga gisee aalam bi yëpp na nga xam ne aji defar alam am na ah wa tax sa nurihim ayatina fi lahfa wa fi anfusihim afi llahi shakk fatiri samawati wal ard ndax nekku yàlla gi lu ñu war a sikk sàkkan xool leen asamaan ak suuf ku ko sos ku ko sos yamul foofu mu ne law xaddasat li nafsiha ak waanu su mbindee fii sosoon seen bopp lajtamaa daje tasaawi yamoo wa rujxaanu ak lëng parce que amuk mbindee fi ak seen ñàkk ñoo yemoo léegi nag ñu am ba pare ñàkk mënuñoo nekk mënta nekk gannaaw seen am ak seen ñàkk ñoo yemoo te jóge nañ ci ñàkk ñëw ci am kon fokk mu am ku foo indi fokk mu am ku leen fa indi ndax at tarjeex bi doone mu rajjeex mënul nekk waaw ñaar mbindeef yi mënuñoo am ba noppi yàq ñàkk te bu fekkoon ne ñoom ñoo sos seen bopp am ba noppi ñàkk dafay am dafay am en même temps sa tànk bi yëgatiku en même temps toog tëre tëralu mënta nekk sa tànk bi fokk mu yëkkatiku wala mu tëdd rek mais nekk di di yëkkatiku nekk di lu tëdd en même temps mënta nekk mbindee fi am ak ba en même temps ñu ñàkk mënta nekk ki nga xam ne nag mooy jëlee mbindeef bu ñàkkoon amal ko mbaa mu continuer ko ci ñàkkam mbaa mu am mu ñàkkal ko mbaa mu amal ko continuer ko ci amam gi ko koy yàlla tabaraka wa taala law haddathat bi nafsiha la ko waanu lajtamaat tasaawi wa rujxaanu wada mu xaalun te loolu impossible la wa xuduusul aalami sosuk aalam bi min xadasil araadi tukkee na ci sosuk araad muy gaar-gaar yi maa ak taqoo xam nga aalam bi baaxam mooy soppiku fokk mu ngi yëngatu walla mu ngi dal lépp loo xam ne nag dafay yëngatu am na ku ko yëngat lépp lu dal am na ku ko dalal lépp luy yëngatu mbaa muy dal maanaam lépp luy soppeeku rek dafa sosu te képp mbaa lépp lu sosu am na lu ko sos am na ku ko sos aji sos ji mooy yàlla ana lam akun humma kuntu fa kullu man lam yakun humma kaana fa huwa muhdithun ayna muhdithuni allahu tabaraka wa taala waaw dégg nga gaar-gaar yiy dal ci aalam bi mooy wane ne àllam bi dafa sosu yëngatoog dal ci lu sosu lay dal te yi sosu muy aalam bi yépp benn mi ngi ci yëngatu mbaam mi ngi ci dal soppeeku soppeeku ak gaar-gaar yi tegtal gu wér la ne ya muy dal yu sosu la ndax koo xam ne ni naka jekk la du soppeeku yàlla du soppeeku mukk lépp luy soppeeku nag lu sosu la te lépp lu sosu am na aji sos aji sos ji mooy yàlla tabaraka wa taala kon nag wujudul aalam xayru dalilin aqliyin ala wujudil baari tabaraka wa taala ala wujudil xaqi subhanahu wa taala mu ñëw layal qidamu ne law lam yakul qidamu wasfahu lazim xududuhu dawrun tasalsulun xutim law lam yakun su nekkuloon qidamu di law lam yekku su nekkuloon alqidamu jiitu muy naka jekk awaliyatoom su nekkutoon wasfahu di meloom law lam yekku su nekkuloon alqidamu jiitu wasfahu di meloo yàlla lazim kon war xuduusuhu yàlla su fekkoon ne naka jekk newut fi kon ñu ne dafa sosu te bu sosoo rekk soxla ku ko sos te bu fekkee ne dafa soxla ku ko sos xutim dañuy waral kon dawrun wëndeelu tasalsulun càllalu te loolu lu jomb la ak dawru muhaalun wa tasalsulu abas xam nga suñ waxee ne dëkk bii duñ fi may jabar ku fi dut liggéeyee waaye duñ fi duñ nangu ku fi liggéeyee te amu fi jabar xam nga mën fee am jabar mu ngi tege ci am fi liggéey am fi liggéey tege ci am fi jabar maanaam jëkk jëkk bi ku fi amul jabar doo fi liggéeyee ku fi liggéeyoo doo fi am jabar jabar du am liggéey du am loolooy dawru ndax bii dafa soxla nekk dafa soxla bële pour nekk bële yi soxla bii pour nekk te loolu mënta ne suñ noonu yàlla dafa sosu ñu xam ne kon dañ koo bind te buñ ko bindee danañ wax ku bind kooka kooku ko bind kooku ko bind ko bind mu nekk dawru ak tasalsul loolu abas la loolu mënta nekk fokk moom mi nga xam ne naka jekk la fi nekk mooy bind ku fi nekkul naka jekk am na ku ko bind kooka fokk muy ku nekkoon fi naka jekk bu fa nekkul naka jekk am ku ko bind kon nag kenn rek moo fi mën a nekk naka jekk sos yi fi sosu kooku yàlla tabaraka wa taala masalatu dawr wa tasalsul woykat bi mu ne masalatu dawri gadat bayni wa bayna man uhib law la mashi bi ma jëfat law la jëfaa la mashi mu ne masalatu dawr mujj na nekk ci sama diggante ki ma bëgg mu ne ndax sama béjjaaw bi budul woon ak sama béjjaaw bi du ma beccangal te budul li may beccangal du ma béjjaaw xam nga loolu maanaam budul woon ak sama béjjaaw bi ndaw si duma bañ ba may jànni waaye budul woon jànni gi may jànni duma ma béjjaaw xam nga loolu mënta ne xam nga loolu mënta ne maanaam béjjaaw bi moo waral jànni gi jànni gi moo waral béjjaaw bi ñaar yooyu mënta ànd ñaar mënta ànd boo fi waxoon wàkka njaay lu tax nga nopp a jaw mu ne li ma nopp a tax nga ne awa jaw lu tax nga naw wàkka njaay mu ne lim ma naba tax ñaari mënta ne ah kii lim ma naba tax ma nab ko moom mi nga nobi li ko doon naba tax mu nob la loolu mënta ne ngeen baal ma ci misaal mi yéen doomi wàkka njaay yi lalam yakul qidamu wasfahu lazim xuduuduhu dawrun tasalsulun xutim law amkana alfanaau lan tafa alqidam law maathala alxalqa xuduuduhu xatam law amkana su jàppandi woon alfanaawu jeex jeex su fekkoon lu mën a dal yàlla la lan tafa dàqu alqidamu naka jekkam gi ba mu nekkee qadiim di ëwwalu rek la nekk axiru bi nga xamee ne naka jekk mi ngi fi rekk moo tax daf fii des ba faw kullu shay'in haalikun illa wajha wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram mi ngi layal baqaawu ki law maathala su yemoo woon alxalqa mbindéef bi in xatam war xuduusuhu sosom ndax yaak yi nga niru yéen a bokk atte ku sosu yi sosu lay niru bi nga xamee ne moom sosuwut mënta niru yuy sosu law lam yajib wasful xinaa lahu iftaqar law lam yakun bi waaxidin lama qadar loola weje su warutoon wasful xinaa meloo koom ñàkk soxla kudut moom ak ludut moom su loolu nekkutoon du di lu nécessaire ci moom yàlla taala iftaqar kon mu soxla ku ko defer soxla fu ne soxla ku ko melal ni mel bi nga xamee ne nag soxlawut yooyu lañ xam ne kon ku womal la moom yàlla tabaraka wa taala loolu mu yëkkut su nekkutoon bi waaxidin di kenn kott ci jëmmam ci meloom ci jëfam lama qadar du mën lim mën mukk waaw law kaana fihima alihatun illa allah la fasadata bu fekkoon ñaari yàlla fañ fi ne kii ne damay bind aji kànji kii ne doo ko bind kon àdduna tukki ndax buñ bindee aji kànjig ki ne kii na kii bañoon nekkatut yàlla ki nga xam ne it moo gañe it li dagan ci kële dagan na ci moom law kaana fiihimaa aalihatun illa allah la fasadata yàlla ji ne damay taw kële ne du taw kii ne damay saxal kële ne du sax kii ne damay dogal likkal ne loolu du mënta nekk ndax boo xoolee àdduna bi ay njiit yu am doole yu fi bokk nekk rek tax na xay xam fi moo bu fi ñaari yàlla ne woon kon fu nit ñi jëm mbaa fu aalam bi jëm yàlla mu ne asamaan ak suuf yàqu law kaana fihima alihatun illa allah la fasadata subhanahu wa taala loolam yëkkul su nekkutoon bi waaye din di kenn lama qadar du mën lim mën waaw mbindeef yi yëpp ki leen mën a amal kenn rekk la mën a organisation bi ni mu noose woo du wàcc yoon wa bëgg mu jaar mukk kenn rekk ko mën law lam yakun xayan muridan aaliman wa qadiran lama raayta alaalama loolu mu yëkkut su nekkutoon yàlla xayan di dund loolu mu yëkkul su nekkatoon xayyan di aji dund muridan di aji namm aaliman di aji xam qaadiran di wa qaadiran di aji mën lama raaytu doo gis aalama aalam bi wala lama raaytu doo gis al aalama woy wi dana baax lama raayta al aalama kon noonu doo fi gis aalam maanaam bu fekkoon ne yàlla yorewut melow dund dundut ku dund du mën a dundale su fekkoon ne dafa lottu nammut bu fekkoon ne xamut bu fekkoon ne mënut mbindeef yii nga xam ne ñoo fi ne doo leen fi gis bi doo fi gis àdduna ni mel fokk kuy dund am nam namm ni nii laa bëgg a def xam lim bëgg te mën ko rekk moo mën a defar àdduna kooku nag yàlla rekk la bu fekkoon ne yii nii du meloom kon doo fi gis àdduna bi ba nga fi gisee àdduna bi mooy wane ne kon ni yii ku melo melo yii moo fi indi àdduna bi ko koy yàlla taala qadaaya yii nag ay qadaaya mantiqiya la bu ko defee muqaddam la ak taali mu ne wa taali wattaali ngay wax wattaali doo wax wattaali yi woy wa dafay yàqu wattaali fi fi sitti lqadaaya baatilu qataan muqaddamun idan mumahilu wattaali aji topp fi sitti lqadaaya indi na lim soog a indi qadaaya wér na maanaam haadihi lqadaaya sitta wattaali fi hadihi alqadaya sitta baatilu neen la qataan ci lu wér qataan ci lu dog mu muqaddam ba idan ban mumaasilu aji yemoo la maanaam ci bépp qadiya fii ba mu ne law lam yakun kada la kaana kada aw la ma kaana kada su nangam amutoon nangam am gannaaw nangam amut mooy wane ne kon muqaddam ba yàqu na su fekkoon ne law lam yakul qidamu wasfuhu lazim xuduuduhu dawrun tasalsulun xutim su fekkoon ne moom yàlla jiituwut fi kon sosom war gannaaw sosom war warut ñu xam ne kon moo fi jiitu wattaali aju topp fi sittil qadaaya ci law lam yakun alqidamu ba ci law lam yakun xayan muridan aaliman yépp baatilun caaxaan la bu nekkutoon di kuy dund waaye kuy dund la su nekkuloon kuy dund konoon du doo fi gis àllam bi te gis nga fi àllam bi mooy kon kuy dund la moo moo ku namb la ku xam la wa hakada ba ca kaw wa samcu walbasaru walkalaamu binnaqli maca kamaalihi turaamu law istaxaala mumkinun aw wajaba qalba alxaqaaiqi luzuman aw jaba wa samcu dégg walbasaru ak gis walkalaamu ak wax binnaqli binnaqli aji saxla ci toxal mooy jàng nañ ko ci alquran jàng nañ ko ci sunnaay rasulullahi sallallahu alayhi wasallam boroom xam-xami xeet yi yépp d'accord nañ ci yàlla dafay dégg bul ne rekk dégg mbindeef yi dañuy dégg kon yàlla warta dégg melowoo nañ ko taawil déedéet yàlla moom moo ne samiun dafay gis moo ne basirun dafay wax mooy ne moo ne wa kallama allahu muusa takliman wa lamma jaa muusa li miqaatina wa kallamahu rabbu tilka rusulu faddalna baadahum ala baadin minhum man kallama allah yii nii yépp moo ko seedal boppam yonentu ne saxaaba yi jarul ngeen di yuuxu woowu leen ku tëx kon dégg yonentu saxalal na ko yàlla waaye nag déggeewut nopp giseewut bët waxeewut cër déggeewut cër giseewut cër waxeewut cër dana dégg dana gis dana wax ca anam nga xel ñeel ko yàlla moom yàlla tabaraka wa taala bi naqli maa kamaalihi ak matam nga turaamu goog dana ko sàkku wa samcu wal basaru wal kalaamu bi naqli maa turaamu maanaa ni nga xamee ne noonu lañ ko lee yàlla jëlee ci alquran ak sunna ak ijmaul ummati noonu la ko xelit nangoo ndax képp koo xam ne yaa def lépp fokk ngay gis lépp fokk ngay dégg lépp fokk nga mën a wax ku tëlee wax tëlee gis tëlee dëgg mënta def li yàlla def tabaraka wa law istahal su jomboon mumkinun aji jàppandi aw wajaba wala war mumkinun aji jàppandi aw jaba kon loolu dafay waral luzuman ci war qalbal xaqaayiqi jàllar bi xaqaayiqi jàllar xam nga suñ ne yàlla dafa am kattan kattanu yàlla ajuwaayam mooy yi jàppandi waaye soo ne yàlla attan na def loo xam ne lu jomb la ci xel kon nga jàllar bi xaqaayiq soo ne yàlla attan na jombal loo xam ne lu war la kon nga jàllar bi xaqaayiq soo ne yàlla jàppandi na mu jàppandi lu war maanaam moom am ak des dañoo war ci moom nga ne yàlla mën naa jeexal boppam kon yaa ngi jàllar bi xaqaayiq yi dafa am yoo xam ne musallamat aqliya la musallamat aqliya la léegi nag mumkin muy nekkuk mbindeef yi mbaa ñu ñàkk kooku ci imkaan la soo ko defoon muy lu impossible kon nga jàllar bi xaqaayiq yi ndax am nañ mi ngi ñu ngi nii te comme mën nañoo ñàkki tamit soo ko defee muy lu jomb jàllar bi nga xaqaayiq ndax xel du nangu loolu ndax am nañ aw wajaba wala nga ne lu ñu mënta ñàkk lañ kon nga jàllar bi xaqaayiq ndax kum lu mënta ñàkk du nekk ko loo xam ne lu mumkin la ki nga xam ne nekkam ak ñakk nekkam ñoo yemoo nekkam ak ñàkk mu nekkam mënuñoo nécessaire law istaxaala mumkinuun aw wajaba qalba alxaqaaiqi luzuman aw jaba alxaqu taala la wajaba alayhi kullu cheyin aw cheyun min almumkinati lanqalaba almumkinu ila xaqiqati alwajibi law istaxala alayhi chey min almumkinati lanqalabat xaqiqatu almumkini ila xaqiqati almustaxili alladi la yasixu fi alaqli illa adamu wa dalika la yuqal law istaxala mumkinun aw wajaba qalba alxaqaiqi luzuman aw jaba ma ngay ma ngi lay wax ne yejuusu kam la waxoon ne xaq yi ficlul mumkinaat bi asriha wa tarkuha eh, fil adamat mbindee fi seenuk am ci imkaan la lu mën a nekk la comme lu mën a ñàkk la su fekkoon ne nag da danga dañoo jomb su fekkoon ne yàlla dafa war ci moom mu eh, dégg nga mu amal dara ci mbindee fi mbaa yool gi leen di yool dafa war mbaa mbugal gi muy mbugal ñi mooy dafa war kon mumkin jàllar bi ku nekk waajib te loolu du wér ci xel su fekkoon ne dafa jomb ci moom yi nga xam ne ni yu jàppandi la lu mel ni bind gim bind mbaa yónni gim yónnee yu mel noonu su fekkoon ne dafa nekk mu xaal kon xaqiqatul mumkin dafay mujj nekk xaqiqatul mustahil te loolu du wér ci xel ndax mustahil du wér ci xel lu dul adamam waajib du wér ci xel lu dul amam li nga xam ne nag du wér ci xel lu dul ñàkkam ak li nga xam ne du wér ci xel lu dul amam soo ko naree def xaqiqatu loo xam ne ni mën naa am mën naa ñàkk kon nga jàllar bi xaqaaqi te qalbul xaqaayiqi batilun inda al uqala hada wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi al-aziim amiin